wala xam amoon ngeen xamoon ngeen am problème parrainage au début. Maria en fait ñun ak ñi ñii ñoom euh, sama confrère bi ñun ñëpp presque on a le même souci. Mhm. parce que gis nga ñun tamit li ñu fi dal. ñun man toog naa fi benn période boo xam ne daanaka man sax nekkuma woon bi suñu plein bi suñu chargé des élections génnee ni on a eu 8500 doublons mu inquiété ñu jaaxal ñu torop et on a eu 11000 pour ne pas me tromper Euh, onze mille et quelques yoo xam ne nekkuñu dans le fichier c'est quand même étonnant. Ah waaw. man man mi waxante ak yow man j'ai pas voté en 2019 parce que je devais voter à Thiès Est fala voté 2017 ci euh, législative 2019 mm. présidentielle ñëw ma ñëw di voté jox leen sama carte ñu ne ma nekkuloo ci fichier bi j'ai pas voté en 2019. donc pour pour éviter lii moo tax voilà te man loolu defuma fenn transfert ndax man foofu laa ma a je suis de Thiès man Dakar laay <laughs> laa dëkk mais je suis de Thiès fa laay voté depuis ba ma commencé voté après may voté France en 2007. mais sinon man bi ma transféré ñëw Sénégal di voté Sénégal ba tey man Thiès laay voté Casino Thiès Est mais en 2017 ma voté fa ci législative 2019 ma ñëw ñu ne ma nekkul ci fichier bi. ba léegi yaa ngi wax xanaa parce que defaat naa defaat naa inscription inscriraat naa. Ah, joxaat nañ ma benn carte bu bees. j'espère que dinaa voter donc xam nga kon yéen li leen inquiété ñun ñëpp moo ñu inquiété. tout à fait comme li li sama li li li sama xarit bi wax léegi. 900000 personnes yoo xam ne kii ni nekk presque 1 million de personnes yoo xam ne nekkuñu ci fichier bi. loolu buñ ci buñ demee élection naka lañu siy demee mais l'un dans l'autre man affaire report élection moom xam naa ni man bëgguma ko sax dégg. Hmm. bëgguma ko dégg parce que du résoudre dara. dara la du résoudre loolu moom mooy rek activé waat le troisième mandat de Macky Sall. mais waaw parce que buñ ko fi bàyyee après <laughs> dañuy traîner les pieds kañ lañ koy def kañ lañ koy revoir tey lañ réunion fii waxtaan fële ainsi de suite temps bi di dem temps bi di dem ça sera un troisième mandat pour Macky Sall. moi je pense que madame Sy moi je pense que le diable est dans les détails bul fàtte ne le le le camp du pouvoir. avant ñuy dem ci parrainage dañu taxaw ne am nañu presque 4 millions de parrainage. Mhm. xam ki taxaw ne la am naa 4 millions de parrainage te amul fitu dem parrainage citoyen dem teg parrainage des élus. loolu dañ doon yóbbu fitu dañ ñi rek non dama lay dama lay wax pour la communication nu mu doy waaree ku taxaw wax la loolu. léegi nii wax nañ ko ne la plus plus d'un million de parrainage yi nga xam ne dañ ne nekkul ci fichier bi. Mhm. nekkul nekkul parrainage yoo xam ne ci pouvoir bi la. Mhm. donc jëlal entre 4 millions leneen. ak 1 million yi nga xam ne ñun génnee ne muy 5 millions. nga hmm. génnee ko ci fichier boo xam ne 7 millions 300 lay def lan moo des kon bu ñëwee taxaw ñoom ñu déclaré ne génn gagné nañu élection yi au premier tour kenn du ko mën a contester ndax dañuy taxaw ne fii la ñu taxaw doon féete suñu plus de 4 millions de parrainage yoo xam ne amoon nañ ko. Hmm. le hold-up wax ji foofu la nekk. waaw mais nag. Euh, ah, ah, waaw yeggal. waaw mais nag xam nga euh, affaire yi fi mu nekk ni mu demee contexte bi fi mu nekk nii sur vingt candidats. vingt candidats loo xam ne mosu fi am fii ci Sénégal si je me rappelle pas. non man fu ñu mos a amee vingt candidats ñu am vingt candidats nga jël benn candidat mu am cinquante et pour cent jël quarante neuf yi séddale ko dix neuf ya xel nangu ko. doyen day faral di wax ne c'est pas possible. <laughs> Ah, doyen loolu la wax. non xel nanguwul loolu. xel nanguwul loolu moi je pense que ak lu ñu mën a njuuj njaaj ak lu ñu mën a mën a mën a def. premier tour mënul am premier tour moom warul mën a am moom. 93 candidats mais non xaw nañ ne am nañ 4 pour cent nga jël ko yow jël 49 pour cent séddale ko 19 candidats c'est pas possible. Ah. c'est c'est c'est vraiment pas possible xel nanguwu ko xel nanguwu ko. ak lu ñu mën a ak lu ñu def def rek excuse-moi ngeen baal ma. lu ñu mën a def def ak lu ñu mën a njuuj njaaj ak lu ñu bare dugg dugg ak lu ñu bare bare bare pexe loolu mënuñu ko ce sera pas possible. en tout cas vingt candidats bëri man de. vingt candidats sax bëri na. vingt candidats nga gis seen seen seen ñoom Macky Sall moo ko waxal. vingt bëriwul nee na de par moom ñi mu xam ñi mu xalaat Amadou Ba moo ci tane la wax de waxul moo ci gën de dafa ne moo ci tane waa ko tane mën nga am cinquante 51 pour cent jël di jël 49 pour cent séddale ko 19 candidats c'est pas possible. Ouais. Il a même pas le meilleur profil en plus.